weer ñu daal di dikk xam ku jóg ne maa xam lu gën ci Muhammad dañ koy dajee ci néeg di ko rëkk di ko rëkk ba mu magam na jën ne ko yow de xamoo dara Muhammad naa soo gisee mënu ci yéen dara ba tey notu leen dafa àndu take bokkam su ngeen ko yóbboo ci néeg su ngeen ko rëkkee balaa ngeen a ñaareel waaw bokk waaw jareti bokk ga da bi jóg ñi di ko ànd ak moom song leen ngeen dee keneen daal di jóg ne maa xam ci moom dañ koy takk ak gëléem dàq ko mu dugg xàll dégg ko su ko defee muy bépp ba muy dee waaw mu Iblis ne ko yow boo ko takkee ci gëléem bu ngeen ko takkee ci gëléem mu dem ba ca xàll ba mu gis ko sàmm sàmm ba dindi ko mu dem ci biir yaaram yi xam ko maanaam ñëw daanu naka ngeen dee yow. muy ñu ne ko ñu ne ko takk dégg nga yëpp ko. يلدتي وتنايلنا يلدنا ويش يكون بك يسيكمون يثبتوك أو يقتلوك أو يغلقوك ويكون ويكون الله وله خير الماكرين نغاي فخه ñaana nay la génne ñaana nay la lay man nag maa maa ña ngay fexe waaye maa leen dàqaar la kay fetti nag waaye loolu ñu ko dëkk xam ngeen ñu ko dëkkam mooy ba nga xamee ne daana dem ci gaalu ci gaalu nag ñii dikk ci Makka ñu gaanu ba gaanu ñoo xam ne ñu nga béy ko mbiri ne juróom benni juróom benni nu xaabal lañ tey mu gaanu leen <coughs> ah fekk mbiri ne xam nekkoon na ñëw kii yahud buñ xeexee ñoom man leen yahud yi ni muñ leen rek yónnante mi mu juddu su juddoo ci ñun lay yu ànd ci ñun lay yónneeku suñu ànd ak moom xeex ak ñi yaaram yi bon yi man leen ñu takkaloo la loo gis mu am rek loo gis nit am am na lu ko ko may lan taalibe benn may ñu jëkk ci yonent bi lii moo leen ko may ba ko defee nag ba ñu bopp yowoo yee lañ ñu daal takkoo jéngeen ko nañ leen ci dëkk léegi daal di jébbalu ñuy juróom benn nit ko ca déwén sa ñuy jot ci fukk ak ñaar ca déwén sa ñuy jot ci lolafin naga sun sayin bazan waina di ta tondi lula wani bonde wuta di wani ne loka o ba o ni shawo don kare nan mu da di mu da di nan jama ko haqa ba jiwu jama ji haqa ba jiwu ji nan moy geew bu mujj ba ngi te ko wax na ko habas habas jibril nan waaye baayam la ta bëgg na ko mu ne ko mu nettali ko ko mu yet mu yetal ko nag mu ne ko sooy dem daan dañ moo waxal maa ndaw yow su ma demoo déglu seen kaddu ya su fekkee kaddu ya wuruj dugg na ja danaa ko am ndax lu métti métti dugg ko la fi jëlee baaga dina ko antoo waaw ndax yaa ngi ci sa yaa ngi waaw kenn du xakki ci yow nag bon bon kenn du daanu ci sa kaw waaw moo di ñëw nag ba mu ñëwee Kaam ibnu Malik moo jëkk wax ne yow yonent loo mu ne leen ñu ne ko xabaar moo jëkk wax ne leen aha buleen ko yóbbu ko baagal génnee ko ci teraanga ak dëkkam leen mbokkam yi yóbbu ko fonto ko boole ko ñu ñu rey ko wala ñu toroxal ko duñ nangu loolu kaa gi no maalik ne ko ñu dey ñooy doomee xale ñun de loolu andi wuñu boraa yu no maaloo jóg ne ko yow yonent bi yow la ñuy laaj waxal mu daal ne inna mu daal di waxal li nga xam ne moo nga bëgg mu ne la inna laay taraa ñu ne moom yi ne anfusum waa waa bi ànda doomu janata يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا لحقا في توحيد والتنجيل والقران وما فتاه من الله فتكيل بغيره لحماية ربه الحارب والفضل ولا من jullit moomul xalalam jullit yàlla moom moom xalalam moom moom bakkanam moom moom xalalam da ngeen xeex danañ xeex ak yéen danañ leen rey da ngeen rey waaye bég leen xam ne tawreet loolu fa nekkoon alquran dafa am yoo xam ne moom ca tawreet nii mu ne ci alquran mënoon ci liñ jiw yi bu nekkoon ci liñ ji laay ñu ñëwee nekkee woon ci liñ ji ak yeneen ay laay ba naka naka naka daal daal moom it noonu kooku itam loolu la nekkee woon ci liñ ji waa laay yu bëri bëri bëri ma nga loolu la nekkee woon ci jël yi jëkkee loolu soppi wuñ ca dara dara daal ñoom la ko wàccee ci yéen te ne ñoom xam ne loolu muy dëgg yéen ci yàlla moom la yoo xam ba nga defee nag ñu nekk ñu nekk nag muy leen nag Abu Haysam ibnu Tayahaan jóg ne ko yow yónnent bi ماكاي بن خيخا يو خاندا يو جيلا خيخلا دي خيخا كو نيون دي خيخا كو واخ كو ويخ نين كو واخه بتو نجي تي دك يي نيب موكا باغا نغي يي دي ياخ نا جادو تي خبا كان دا لوم با دو دوام مون لي موم وين دمو بي دمي والهل مدل هني منكم وانتم مني اسالم من سالمت واهارب من عارف وين دم لي سما دمرا yéen yéen a ngi bàyyi ko ci man maa yi maa ngi bàyyi ko ci yéen yéen ay man maa yéen yéen a ku ngeen xeexal ma xeexal moom ku ngeen ma doon ma ma la moom yéen a moom dund gi yéen a moom teel ne ko bon ajab loolu doy nañu ñun na xale jaaxal yi ñun xale na ñeen fukki at tëdd luñ gànnaay kuy xeex fi ñun ngay xeex danañ la xaar ni ñuy xaatee suñ doom danañ la xaar ni ñuy xaatee suñuy jabar danañ la xaar ni ñuy xaatee suñ xaral mu dem ci loolu nag jëxal la sa gaañ yi wax loolu yàlla ne ko ay sa kay demal na fekke fa gaaña yonent daal di tànn ci ñoom ne fukki nit ak ñaar ñooy nu xabaawu saalu yi naa baarata saalu ak ñu ko samata saalu yi nu rabiata saalu asari nu suraarata wala ma munsir ibnu hamrin wala abdullah ibnu rawaata buraa ibnu maaloo ukéeb ibnu hudari abdullah ibnu hamrin ubalata ibnu saali rafion ibnu maali fukki ñii ñoom la ak ñaar ñoom la yonent bi tànnoon def leen ñooy nu xabaawu ñoom la yonent bi tànnoon moo tax nag ñi nga xam ne dañuy dem ci biir réew di wax ne waaw sëriñ ci muqaddam yi ñuy def ana lu tax fii di ko def xanaa dañuy jàngu siyar yonent bi tànnoon na fukki tànneef ak ñaar far ko ci muqaddaaw Muusaa defoon na ko jàngal ci saaru maay na seet wala xanaa xasalaam bi saa bàyyi laa bàyyi ko dellu nag di jàng te ñu jàng ko arab rek ma damay leen wax ne leen làkk arab bu rafet bu mu leen jaaxal bu mu leen tiital làkk arab moo rafet bu mu leen jaaxal bu mu leen tiital bu mu tax ngeen jébbalul kenn na ngeen xam ne na fekk koo xale ba mu làkkee arab moo rafet mu sunniyu ba mu sunniyu alxuraan nekk ci yonent bi xamee jikko yonent bi xamee jikko bu boobaa làkku arab ba moo rafet na suñu mu làkk làkku arab moo rafet yi jaala gënoon a rafet ñëpp ay arab ñi yonent bi fekkoon ñooy arboobu arbaay waaye te ñun ñoo beneen yonent bi boo mu arab moo rafet bu leen jaxase bu mu leen bu fekkee borom duur dafa sell da nga xam ne xamee xol bu sell diine sunna yu mooy itam làkku arab wala ma nga mel ni làkku abi jaawa noonu la mel loolu laa wax man ba tax na waaye waaye ndax nu xabaaw yooyu nga xam tànnoon na ko dem ko moom wuutu mu xaddam yi seen seen ci ci yàlla Moussa tànnoon na ko te yàlla sax moo ko tànnoon mu ngi ci Saalum waaye mu ngi ci Alxuraan bon nag ngeen ngeen ngeen ko noonu naka njàng naka njàng ak tànn da feeñee ak ak jiitale di doon di doon amee nag mu daal di tànn nag ñooñu ñu ngi jëm njubal yàlla di doon ñu ko nag mooy la ñaan mooy gàddaay gi nag mu daal di ñëw nag ci si nga Babacar ne ko sama borom na ko ma gàddaay te yow wax ne yow laay àndal si nga Babacar jëg bay jooy ngay xaay te ne keroog laa ma ko gis nekk ma mu ma bay jooy. mu kella asmaaw daal di fat caqam ya takkalee ko seen guuf ya moom la ñuy wax si ah suñu taqalee moom la ñuy wax borom ñaari taqalee mu jikk ñun ñu yi di des juróom-ñaar képp fi ne ñëpp xeban la ba gàddaay woon na ba ñooñu jébbaloo rek ba mbir yi na lew kër yëpp fees saaba yi ne leen man man mënu maa te sama borom digal bu ma ñu dem ba nga xam ne juróom-ñaar yi képp ñoo fi Aliyu ne moo mujj a gàddaay Seydina Omar teeru muy gàddaay ñëpp dañ daan nëbbu di dox ci àll bi Omar moom fa fa jëkki ba njolloor mu sol ay mbubbam fab jaasheem dox ci digg pencam Màkka ma nga doon ba saay saay saay mu ne leen eh maa ngi gàddaay man topp leen ma ci xub bi ku ma topp ci xub bi ma dal la tee sa jox daal di la tee di léegi xam ngeen Omar waaye gën ko kubale ba mu ko defee nag ñu ne booba nag ba yàlla mu daal di ñëw nag mi aji yu laaw ne ku ma fii nekk ci nee ni suñ ma gaddu la àjjana ah Aliou ne ko dul maa ko moom Aliou daal di camaraan ma ñu ne nañuy def nag ñu ne nañ ñu ne guddi gu jot doo dikk ci kaaba bi nañ dem ci buntu néegam nekk ko ñu ne buñ na leen na leen سوجي بوكو تكي بوكو لو بي مان دي واي بي اومو واي تاي مو نراو لي mu daal di ñëw rek pour ñu ci buntu léegi yonent bi bañ fa ñëwee ci buntu léegi yonent bi yonent bi daal di génn jàng yaasin ba jafam laa yu turam mu ne ami saati saati wu jëw wa ami yetti la saar den tey de loolu day waaw loolu day gàllaaj bu ne na de mu daal di dem nag jamono bi kumbeti ne ko gudi di bel ne ko gudi di jamono sori ne ko yol mala la yala wacce gal jaara ilaya ilaya ilaya ilaya sina bakar da jitu nak mala na wan yaari muddu mo jëkkal jitu yo sina bakar dal mi nga and ak yonent bi fu ragal xayu gannaaw ne masu muy dikku gannaaw naafare gannaaw du baye ko gannaaw daal bu dikkee jaati man ray ma man mi xamuñ njëriñ mu jikku loo xale xale na kanam mu ne ko mu fare xoon kanam mu fare kanam nga ne lu lu ko ci kanam su ñëwee fekk ci ma ma man naa mu njëriñ mu di du saal yaxawoo waaw mu daal di ñëw nag jiitu ci biir xunt mi nag ba ci xunt mi nag daal di fam ko xotti saañee ko kan yi ba mu nan kan mu teg ca luppam jaan daal ko mat ba ko jaan ja mattee nag ba nga di mu xeew fekk mi doon nelaw miinu coono dox ba mu xeexoo ne Babacar du xew mu ne dugg mu ne ko ah kay mu ne ko dara ma mu daal di ko dugg mu wàcc mu ne jaan ji génnul mu génn mu nga def pata pettaaw ba daj mu ne jaan ji lu tànga mat kii mu ne ko sang bi jógul malaykat ba yàlla bindee xaaral wa kaana xarsoo xaalal maay ba yàlla bindee barul mu hiit ndox gi xalal bépp di géej mu bind xaaral mu tegee ci kawam xasa maaw xamul suuf xamul booba laa doon gis bu ma xoolee ci ndeyjoor ji laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullah fu ma xoolee ci càmmoñ ji laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullah fu ma xool gis loolu ma ne sama boroom turu tedd yii ngay soo suturi mooy kan mu ne ma sama jaam la sama fa waaye moom laa mooy ki nga xam ne moom sama soppe moo tax ma bind mi ndeexi mu ne ma ma ne ko dama ko bëgg a siyaara mu ne ma xaalam ba muy xam xaalam ba muy xamee booba xamagut génnee ko moom moom laa jëkk a bind naam waaye daal dama ko doxañ ko waaye daal mën na ci xaral ñaar fukki junni ci xar suuf si xam yàlla suuf malaaka mu jënd ko malaaka yi jinne yi moom ko ak seytaane yi ñaar fukki junni ci xar gannaaw ga jinne malaaka yi jihaad ñoom moom suuf ñaar fukki junni ci xar maa ngi déglu ba yàlla bind aadama ba bind nuuhin di bind muy déglu di ñu jiw di ñu leen jiw ba yonent bi jégg naa ne judd na ñu fekk ma fii ni ma Muhammad judd na ma di ko fuuglu di jégg ba ne gàddaay na tey ma di ko fuuglu ba kii dox suma diggante woon loolu tax ma màtta ko mu ne ko loo doon lekk nag mu ne ma mu ne ma yàllaa ma joxoon aw tur yàllaa ma ne woon soo xiifee neel yàlla yàlla bëgg ko bëgg Babacar bon da nga suur soo maree neel yàlla yàlla bañ ko Babacar bañ Babacar bon da nga mandi yonent ne ko ka nga doon naanee doon ko lekkee mooy ki nga màtta tey jànga daal di jooy nag waaw ah yonent daal ما لا لا لا مدبرتي متبصرين لا في لا واو الصديق لا لا واو لا يقولون ما في لا من لا لا هو لا من خير ومن كرم وما هو لا من لا من خير ومن كرم وكل لا من الكفار عنهم لا لا لا لا ملاحظة من لا وأنهار من لا لا من دقي على وما هو لا من خير ومن كرم la lam làq ci aji gëm ak ku tedd ku gëm ki mooy kan nga daal di xam kii ki gën daal di xam kuy këramu xayru bi mooy Muhammad këramu bi mooy Babacar loolu mooy ba loolu mooy loolu mooy bayaan dëgg loolu waaw loolu a rafet ci ci xasida mu daal di <coughs> mu daal di nekk fa nag ñetti fan nag waaw Abdourahman ibnu Babacar moo fi fanaan ba ba sete nag ba doon dem marché ñu ma leen ba ku mujj a nelaw ku mujj a xeew mooy nagam na def abi jaal dóor ko ne ko yow kan la waxoon du lii mu ne daf maa njabar wala ñeeku mu daal di dugg ñu daal dugg dugg néeg bi fekk Aliou ngi tëdd mu ngi bëgg aljana ji ñooñu de weddiwuñu aljana ñoom weddiwuñu ma ngay taxañu ca malaan ma bañ ñu xam ne bu rey ko ngeen mu jot ci aljana ñu ne ko léegi jógal du moom man Aliou nga génnal xam nañ sa tëdd bi malaan mi malaan Muhammad la waaye tëdd bu tëdd ah mu daal di jóg nag anam nga xaw ma xaw ma ku mu dem yàlla yóbbu na yonentam ku mu xam ne daan ñëwal ma jox la rek loolu laa ci xam ku fi dencoon alal ñëwal ma jox la fekk ko waaja moom waaja la mu joxe dénkaane yëpp seen Abdourahman ibnu Babacar moo fi fanaan su setee njël mu daal di ñëw su ñëwee dugg Màkka su duggee Màkka xendoon ñoom di xam seeni pexe ba ngoon jot mu dellu xaadir ibnu Xurayrata sàmma Babacar bi moo fi jaar suba ñu rottu ci ah xane ku ngoone mu jaar fi noonu lañ de ba ñetti fan fan ma kum ma dal mu daal di ca bàyyi ko ñu daal war nag jëmbi di ne yoon wu jëkk wa bañ demee ba kera la ko Suraaqata dab nag Suraaqata ibnu Malik man ko dab nag yonent nga jiitu rek kii jàng Alxuraan Babacar nga des gannaaw ba Suraaqata mu ngi war naalu góor xamee jaaseen ak i kattan leen juwee si naa baakal ne ko yonent bi solaakataa ngi ñëw de mu ne ko du ñu ba solaakataa ci mu ne mu ne suuf jàppal ma solaakata mu dal di njudo ci diggu noor ba wër ko wër fees mu ne ko Muhammad yow la de bama lii de yow la bama xamoon nañ ko de dañoo saay saay te yàlla jugu leen jàmm yëg leen ne gëm yàlla yàlla koy maye gis dëgg taxut a gëm yàlla de ko gëm yàlla yàlla la ko may la ka desit ku ko am moo la ko may de ndax ku gëm wàllu yàlla yàlla la may nga gëm wàllu yàlla yi yàlla nag moo tax moo mu mu ne waaye xam xam nañ yonent mu ne ko yow la bàyyi ma soo ma bàyyi ma bala yonent ne suuf ba mu ba bëgg xalaat ji tax ndax abi dañoo dañoo defoon ci ñoom xalaat joo xam ne ju bëree bëree bëri la moo tax ñëpp yi jóg ji wut suraaxata tëbalaat ñaareel ba mu ne cëpp rek mu ne suuf jàppal suuf ji ko ba suuf ya dugg mu ne Muhammad yow la de bama mu ne ko bama sama bàyyi ma bala mu ne ko bàyyi naa mu dellu tëbalaat yoonu ñetteel dëkk mu dund ba tegee ci kaw suuf yi mu ne ko Muhammad bama sama bàyyi danaa la baata danaa la ndax ba mu ko ne balet mu ne ci saxal sa ne jël jël jël jël jël mu ne ko soo yéexoon léegi sawara lekk la yow nga jël jël sawara yow mu ne ko wallaay waa nga dëgg waaye daal gëm naa la léegi ma yóbbale la sama tungaar bi sama sàmm yaan ci kanam nga yóbbalu nga am ca loo ca yóbbalu mu ne ko déedéet waxal laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah mu ne ko ma doon la bëgg a jàpp munu ma laa jàpp nag ma fa di jibbu loolu su ma ko defee suma am suma jànke Makka lépp dootuma ci am jawaab daal di wàññeeku daal di wàññeeku ñëw nag fekk fam toogoon ci pénc ma laxam ku wax ne gawar yële day Muhammad la ak Babacar mu xool leen ba xam ne ñoom la ne du ñoom ma ngi leen di fekk ngir xalaat di ci nekk ne ko du ñoom de da di dugg këram da di fab aw naa naaru góoram dox ca pëj ba gatandu leen ba mu wàññeekoo da di dikk fekk si naaru góor ba dugg këram fekk si gaañu fi ñu toogoon xam waa ji ne ko naka gis nga leen gis nga ni ma doon wax mu ne ko déedéet gisuma leen foofu fépp nekkul mu ne ko ngay fen sa xar kanam gis na Muhammad da nga ko mënul dara sallallahu alayhi wa sallam ngeen xam ne gaaya xamoon nañ gaaya de ba ko defee nag muy dem na xamatuñ ci moom dara nga jaaxle ba dee nag boolu huñ lu jinne way nag jasa laaw rabbana fi xayra jasa yi fi xayni xaala xaymata ummi maa badi boobu laa ki umu maa bad nag ba mu faakee nag lu fa njëkk def lu fa njëkk def benn gàtt boo xam munta joti mu ne soxna si xaatikatu bëgg nga may ma soow mu ne ko man de ray ma soow mu ne ko gàtt bële may ma ko mu ne ko kaa dafa lompañ ba munte yi mu ne ko may ma ko rek mu may ko ko mu ne ko mu ngoo xam nga ci ndigal mu daal di ko raay mu fees jël ko yaram daal di kël daal mu rattu mu feesab kël mun jox si naa baakal mu fee mu rattu mu jox ablaye nu wareeti natt daal di naan ne saafil xaw mi aaxirum sal bu sulban kuy naan daal nit ya aw nit de ba nga xamee ne fa ko tax li ko ak garab fa fam ko taflee ak garab sax na fa garab gooleen nekk na fa ba ci jamonoy Sidina Umar ba ci jamonoy Usmaan ba ci jamonoy Aliyu garab gooleen nekk na fa waaw ba nga xamee ni waaw ba nga xamee ni am na fukki fan ak ñaar ba muy dem mu mu daal di dajoog balaaw bale balaaw bokk balaaw fekk muy def ko luñ wut ma nga ànd ak juróom ñaar fukk waaxa leen ne bu gisee yonent bi xooleen ñu rey ko ngi xaral di ci xorey seen def ba ma kee nuyu mu ne ko balaaw mu ne ko waaw noo mu ne ko balaaw mu ne ko bale balaa mu ne Babacar balaa dañ nañ mu ne ko koo mu ne ko bani banu asam mu ne ko salim naa mucc mu daal di jébbalu ànd ak ñoo àndoon mu daal di jébbalu ba yonent yi ñëw nag dëju Medina nag dajeeg koo dafa yaxantu yi bàyyi koo saam mu may leen dampi ñu dog ci na sol yu weex yonente xàggale na Medina daal ci kër Banu Hamim ibn fukki fan ak ñeent la fa xam hmm. daal di gis ne fii de man day dëkk buy lekk dëkk laa gisoon daal di takk nag fasam daal di fukki jiit ak yaar fukki pénc ak yaar laa leen waxoon pénc moom xàgg ñu ne ko wàcceel fii la ñun ñooy borom doole ji ñun ñooy borom kattan ñun ñoo raxatal ñoo xana xalal yi muy xadoo sabilaha fay naa maamul bay leen gëlëm gi rek yàlla fa koo mu ngay sëmb rek ko topp rek ba nga ne ak kii fu mu xakki nag da dina waas ko mooy rob ñi wëpp bëmb dalu jóg doxat tuuti wu ñeeku bëmbati fi mu tëw fi mu tëw mu dane xaaxu ah, naan man fii fii mooy wàcci waay bi aaw ah, abo ah, ay balansaar yi daal di fëkk koom temoi fi nga xam ne tey mooy sangam mooy sangam kii nag loolu nag foofa nag gaa yaa ngay way nag faata la al badru ne ñëpp wax na albadru aleyna min saniyati alwadai أيها المبعوث فينا لتخبير أمر المكائن جئت زارت المدينة مرحبا يا خير داعي جئت زارت المدينة مرحبا يا خير داعي بابا jéeb yooyu it ñu ngay way nag naa naanu jawaari min bani najjar yaa habasa muhammadan min jaar naanu jawaari min bani najjari yaa habasa muhammadan min jaari ñoom yi ñu ngay way tabaraya ñu ngay tëgg tabaraya nag foofa nag la yónnanti héeg nag sëkkal abwaay wa dan saari booba la daji ba leetal ba eh? mooy xamle yonent bi mooy lan mooy waaw tubaxool awal mooy buuru tubaxool awal bi nga xam ne mooy buuru yaman moo doon doxantu ba ñëw makka ma nga ànd ak ma nga ànd ak gouvernement ñëw makka ba ñëwee makka nag yi waa makka kenn saku leen faale wuñ góor bi ganale wuñ ko buur bi daldi buur ji koy buur nag daldi mer na tey fay toj makka ba mu makka ñu ngeen makka ni mu gaafee mu daal di feebar na feebar bu bon boo xam ne na ngay génnee ca nobba de tiwaan yaag yooyu xatew xunnu di génnee ca bët yaag yëpp xaa doy xatew xunnu de kel ma tuta ne mu daal di xoo sawaaya mu xoo yu maget sawaa bu mag ko laaw yow buur bi baxal ma ma waxal la mu ne ko waaw mu ne man day man day wax ne ci sama xam-xam dafa am lu nekkoon ci yow du sa xel mi dajoon mu ne ko dëgg-dëgg fa am du sama xel mi dajoon mu ne ko du sama xel mi dajoon mooy biñ njëkkee ci dëkk bi gën a réewuñu faarewuñu maa bëggoon a toj dëkk bi damaa bëggoon a toj dëkk bi mu ne ko tuuba rek boo tuubee rek daal di wéet mu daal di tuub rek daal di wéet nag mu daal di fawu nag dikk Medina booba Medina ngi nekk di ab xala xala keesandeen kenn nekku fa waaye borom xam-xam ya nag ne ko fii de ñun ak xetan ñu fii xeeñ fii ak xetam ñu fii xeeñ gis nañ fi mbooloo gis nañ fi dëgg gis nañ fi ab yónnantu ñun day dañoo bëgg nga ñu fii banu fi loolu waa mi dina waa yaman lañ moo tax ñu ngi bokk ci banul xaxtaan jiiti yaaram yi ñaar lañ banoo xatnaan ak banoo xaataan xaataan ñooy ñooy waa yaman adnaan ñooy waa ijaab ñooy ñooy arabi xoreysin xaataan ñooyu le nag ko ba mu ko defee ne ko nag waaw nga dëkk ñu mu dal leen fa sañcal ñeenti téeméeri néeg dal di bindam leetar ne bàyyeekoo na fi man bu Xemreer jëm ci Muhammad yonent bi ñëw fii maa ngi lay bind leetar maa ngi lay nuyu maa ngi jébbalu ci yow di la wax ne maa ngi ci sa diini di la wax ne maa ngi sa maa ngi say doom di la wax ne maa ngi ci sa kanam xellante kon may dund ba ngay xare ma ne ci sa kanam di xare ci sa kanam ba dee nga suul ma ñaanal ma wasalaam loolu moo ne ca lettre ba denc leen ko mu dal di jox doom ya ñu ko ci alankees te ko ci tëkk alankees yi dégg ko alankees yi xoola xoola kër ba yonent bi toogee ci ne abooye balantaar yi te mooy sa di mu dal moo moom moom mag Medina itam mooy seen buur mu dal di génnee lettre ba tijji ko ca waxande ya ko ca alankees ya tijji ko ca koppar sooye dal di dindi lettre dindi lettre ba dal di ko jox nag muy seet boobale muy junni ci at ba yonent yi gàddaay ak ba Medina xeex ba ñuy sañ ci Medina ba muy gàddaay muy ñeenti muy junne ci at boo nag tey Medina xam na ñaari junne ci at ak ñeenti téeméeri at ak ñaari at wala mel na at loolu mooy li nga xam ne moom la Medina am sallallahu Medina ba nga xamee doo xew na nag ñëw na nag fekk na fi yaari jiit banu Quraysata ak banu Nadir ñu yaari gii di yahud kële gii di yaalam yi ñaaray law sa xasraj law sa xasraj ñu nit ñële xéenoo na law su ñële xéenoo na xasraj te ñoom dañ daa xare yónnunte leen boole rek waaye dañ daa xeex boole de moo leen boole moom la yàlla randantax naa war kuroo isaan waaw kuntum aadaan waaw dafa bay noo kulóobikum sant leen yàlla ba ngeen nekkee di ay noon l'islam dikk boole leen gaa yi mu ngoog lislaam a ngoog lislaam ak la ca nag lislaam liimaan di chaan looloo waral xaarifiina billaay yi lañ sant jullit ñi ca kawam lañ leen sant ndax mi ngi mi ngi mel ni saal mi ngi mel ni ab doom doom buñ ko tojee saal ba moo gën a foor doom ba maarifatu nag li nga xam moo la lislaam hëmm moom lañ ca soxla leen leen ko lislaam lu muy firi jëbbulu lislaam baat bi lu muy firi ci baatal arab mooy jébbalu jullit dafay jébbalool yàlla jullit dafay jébbalool yàlla bu julli bu boo jullit la bu jébbalul yàlla xanaa nekk ci bànneexu bakkanam kooku bon ma nga ci bànneexu bakkanam yàlla musa ci loolu ne fa ma nag ba nga xamee ne xam na fa juróom ñaari weer nag foofale mu daloon fekk ñaari ñaar sax mooy ñoo ko moom ñaari xale yooyu ñoo ko mu jënd ko ci ñoom nag ci xalaali mooy fan tabaxee xabru boole ma jàkkaam yooyu ak xabru ba pare nag ba nga xamee ne xam nañ juróom ñaari weer nag ñu jëli ko bañ ko jëlee nag ñu jëli ko njaboot ga mooy nday xaay sa sama yoon nañ ko ko ak njabootam Babacar ga ak a asim a dégg ko ak Umu Haani ñooñu njaboot yi yonent bi ñu leen di leen booba Xadijatu ñuy ñëw nag ñu ngay tawax kaaba ga nag ba ñuy tawax kaaba ga Abdallah ibnu Rawaha am Miqdaad ibnu Aswad ak Hasaan ibnu Saabit borom baat yu neex yaa ngoo ñu ngay way naa faati maalu daahi maalu xaybara عسى أبر ربنا وأثرى اللهم إن ذكر ذكر ذاكرا فالحمد أنت والمهاجرا عسى الهمال لا يمال خيبرا عسى أبر ربنا وآخر أداهم إن رجل رجل آخر فهمدا فهو المهاجرة إيه. دون أن قال المؤمن دون وحبي بني توقع بلديه نمولي مثلا وبلين دون أن بيون ننت بي حامي جرومي جرومي فنك جرومي وير بابا بوكالي بابا لا بوكالي مهاجرين نعم فعل كل يوم نقبل teg ko ci loxol kenn ci lantaar ne ko kii moo wuute sa mbokk moon jëmee ca Makka diw maanaam Hamsatu xaarijata noonu la ko defee ku mu ne la yow mii sa mbokk yowoon ca Makka diw mii moo wuute doomi ndey tey mooy doomi baay ngeen xamee ci ngeen jógee ci wax kët nit ka mu bokkat sëriñ bokk ak moom lépp moo di mbokkam moo di léppam ko defee nag mu ñàkkal ñu nekk ba nga xam ne juróomi weer juróomi weer yooyu de waaw ci la Abdoulaye ibnu Cheikh ji seen nodd fekk dañ doon waxante mu ñun lu ñuy wootantee dañuy wut jóoloo leen ñu ne déedéet bon dañuy yi di ko wax nag Abdoulaye ibnu Cheikh daal di tëdd nelaw gis malaaka la mi nga amee benn jóolóoli mu ne ko yow jaay ma bi mu ne ko loo koy defee mu ne ko dañ koy xootantee jël lislaam mu ne ko man gis naa lu xam ne moo gën a foor loolu di mu ne ko lan mu ne ko allah akubar allah akubar allah akubar asadoon laa ilaaha illallah asadoon laa ilaaha illallah asadoon laa ilaaha illallah waxaat ca kaw dikk ko ci yonente bi mu wax ko mu wax ko ko mu ne ko wax nga dëgg xooleel ma bilaal ñu daal di xool bilaal keroog mu daal di nodd ci fekk fii dina am war jóyantoon na ko bët seen moom itam mu dikk mu ne ko daay may itam yow yonente bi nii laa ko jóyantoon xóolowuma lu may ne bu bësee te ma wax la ko xóolowu lu may dégg bilaal def ko ma xam ne lii daay wax yëfi yàlla la moo tax jóyante nga ku ko ku ko ku ko xeeb yaa ko xeeb waaye ma nga bàyyi ko fa yàlla لا هم سبيح على دينا محمد الباجر ما صغنا تخلق وعادي لا تراك تمتق وعلا كنتي من على رأينا كنتي من يودو علينا رأي كنتي من ترى رأينا دقان يكبرون طبيبوي بمولي يوحكي كيهو waaye daal képp ku jàpp ci yonent bi rek dañ lay rey te da ngaa doole naka noonu la mbir yëpp noonu la ñuy njëkkee ma ne leen mbir yëpp noonu lay njëkkee mbir moo ji dafay njëkkee néew doole waaw ñii lor seeni borom di di leen wax wax ju bon di leen def def lu bon bañ xàgg ci dëxër kenn dootu leen mën a def dara kenn dootu leen mën a wax dara moo tax ñun ñee ngeen di gis ñu dëkkoon ci faydu bi xamul luñ ñu waxut xamuñ luñ ñu defut lu ñu dégg nañ ko lu ne gis nañ ko alaaji Ibrahima lu ne dégg na ko ñoom ñi xandoon moom du nekk dégg ko lu ne gis nañ ko mbir yëpp noonu la démb mooy tey tey mooy démb yonent bi nekk naag waa Makka ñi di ko xool ñi di ko lor ci wax di ko lor ci jëf ba waa Lansaar ñëw jëddulu ay ba ña nga ay bokkam ngeen déglu nag ña nga xam ne ñoo buñ ay bokkam moo tax mu ne wasalahu waxana gisoo ni day hi waxalahu wa wadahu alxurabaaw noonu da ko bosee yi waxee mu ne miis nañ ko def nañ ko bañ nañ ko waaye tumuraanke nga xam ne bokkuñ ñëw moom tous ñoo bëgg ko ñoom tàpp ko dimbale ko ba nga xam ne fu gën a àddina lépp ba nga xaye bi mu ci jóg li jëseetul la bala mai midine kuke ta kuke kuke kuke yara juróom ñaar dafa yàlla da yàlla ne ko nag waxtuluhum haysu saqatumuhum waarjuhum min haysu arajukum xeexal ak ñoom nag foo leen mën a fekk xeexal ak ñoom yàlla ne ko waxtulul musrikina kaafatan kama yuqaatilunakum kaafatan waxlamu ana allaha maa almuttaqin xeexal ak xéefar yi waqaatilul musrikina atala takuna dinu atala takuna finnatun danga ko xeexal ak ñoom ba nga xam ne kéefar du am na nga xeexal ñoom ñëpp si na leen si ne yuqaatiluna bi annahum sulimu inna Allaha ala nasrihim qadir ñu yàqu na la banaa wala yàqu na la banaa laaw ñi nga xam ne ñu nga xam ne waxuñ bi mooy sama borom ñooy seen borom mooy bi mooy yàlla ñooñu de mooy ki xale badara ngi nag ba nga xamee ne yónnent bi nag am na Medina fukki weer ak juróom-ñett booba la yàlla yu jéentu loo yónnent bi ne ko njëgg meeg ndox li may naa la ci lenn mooy ba yónent yi génn Makka dafa ñaanal waa Makka na yow yàlla yaa may génne ci dëkk bi ma gën a bëgg man yaa may yàlla ma yóbbu ci dëkk ba nga gën yow foofu la ni Medina moo gën Makka dégg ngeen wax bi yow yàlla yaa may génne ci dëkk bi ma gën a bëgg man waaye yàlla ma yóbbu ci dëkk ba nga gën a bëgg ba nga gën a bëgg yow te yàlla nga ko yóbbu Medina dugg la nit ñi jëlee ne waaw Medina moo gën Makka bi loolu xamee nag bi muy dem du ragal dañoo janoo moom ne ko ظنونين لك فتفجر لنا من الرياض أكف لك بأرض من نخيل وتفجر لنا خلال طيب أو تلقي السماء كما زعمت لنا كسفا أو تأتي بالله والملائكة بقبل أو يكون لك بيت من سرب أو تلقي الإنسان والنبي يلقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه sart bi lañ jox yonent bi ne ko dund gëm dama ngay toxal doji màkka soo toxalee doji màkka yi fekk dañoo dajoon ñoom yëpp ñu def délégation Walid ibnu Mughirata moom Walid ne ko sama bokk yi ñoo ma xelal ñoo ma def délégation ne naa wax ak yow jox la ay sart soo ko mënee ñu gëm la soo ko mënu duñ la gëm moo mat soo su fekkee mën ngaa toxal doji màkka fi ay yoon depuis tool yi tàndal maakish tooli refeñ tooli refeñ yooyu de ay yoon nekk ci diggante ba mu mel ni la nekk saam ak liibi ak bay bayru noonu la dañ ko wala danga ko nga defal ñu ay néegi hurus soo manee loolu doñ la gëm soo ko munut ñi gis ngay ñolog ñologi di héeg ba ca koo xasamaaw nga jël fa yàlla mi ngay wax ay leetal minallahi ila muxirata inu walid من الله إلى نبيه من الله إلى أبي جال من الله إلى أبي أبو هبيرة نيسوك مني جبين تيا الله جبت أبو هبيرة يا أدا أبو أبو البوتري جبين تيا الله جبت أبي جال جبين تيا الله جبت فلان فلان فلان سو مني لولي واتشال لي ترى جهن يكو سوك مني نجمل سوك مني نبل بين دعم دعينكو لولو بام أمينك لولو ما ورانا يننتبي يلا جيكو مقداي مقام نيني يلا نكو yàlla ne ko duñ la mën a gëm mukk muhammad win kaana kabura alayka iraadum inni tarata an tattaqee nafaxan fi lali aw solaman fi may fataatihum bi ayatin walaw saadaahu la jamahum ala huda fa takuna min addailina muhammad su fekkee sa bopp yii da ngaa tiitu ñàkk gën ji ñàkk gën nga bëgg ko waaye defal wutal ay am pax nga dugg ci suuf yi wuti gëm ñu gëmee ko bu a di yëpp mu atal naa sa a bañ gëm loo ci man Muhammad su ma soo ma gëm loo leen waaye duñ gëm ñii duñ gëm mukk ñii nañ tawala lay tawala laa leen jëmee dëggul Muhammad bàyyi leen waaw loolu nag su ko gisee su di ko digal gàddaay waaye du ragal leen du ragal seen jaatiye ko gàddaay mooy gàddaay gi weer ak juróom ñett nag la gént nag ndëggam yaa ngi doon yi fekk ba muy génn génn dëkk ba ñaan na leen yàlla ne yow yàlla yal na leen yàlla jox makka gi yal na leen yàlla xeen dekkoor bokki yuusufa ya d'accord ba d'accord d'accord ba nga xam ne ne xewoon na Misra ba ñuy dikk ñu koy jëkk si d'accord boole nga xam ne xewoon na Madayna ba ñuy dikk si jëkk si Misra yan nañ ko teg Màkka ñu xiib bay bay bay lekk seen xaj ya xiib nañ bay lekk seen xaj ya di lekk ku ci gëléem yi xamatuñ dara booba nag lañ dal di fam nag dafa dal di dajale alal juróom benn fukki junne ci dollar jox ko nag abi Sufyaan mooy asoy bi nga xam moo topp ci abi Jahl mu daal di dem Makka nag dem Saam nag Saam fa lañ daal jógee ji Saam fa la ñuy wajaasee mooy léegi tubaab yi naka mu ko dinañ bañ nag ba ñu wàññeeku nag yàlla yonent bi gént jox ko njëkk mi wala ndox mi moom lay naa wa too doon ana xayra saa bi sawka di lakum booba nag yéen yàlla moo xam xol yi yàlla mu ne ma booba nag yéen lu ngeen bëggoon mooy ngeen daje njëkk bi ki xamee xalaat ñu seen ñëw gànnaay waaye yàlla dogalul loolu bu waxee yàlla moom ba ba setee mu daal di ko wax nag ba mu ko waxee boobu xare yonent moo ko doon xoral boppam moo togg Babacar ñu dem ba biiru Safwaan ba fale fa Badar foolee ngeen demoon yéen ñu xaj yi foolee fa Badar fa biiru Safwaan ba fale la taxaw bu jógi seen ndaw naa eh waaye lekk lebal ma buur buur Abi Sufyaan jaaree fii muur gaan ci fayda boo léegi dana fi jaar ma nga amee njëgëm Quraysh ma yonent bi ne Babacar jëngaam lañ doon wutandoo daal di wàññeeku na def yi ci tuuti Abi Sufyaan yi jóg na yëngu yonent bi daal di daal di xeebal benn tariixatu moom moom la arab di wax benn xor mu ñëw ba fokk ci teen ba fekk jigéen ñaa ngi root mu ne jigéen ñi yéen du ngeen dégg ñu ne ko dégguñ dara gi mu ne leen du ngeen gis ñu ne ko dara bala yàgg seen na si ndaw ne ko ah kay séen nañ fële de benn muur biif mooy koo xam ne dafa war togg ca nit mooy loolu mooy moom la arab di wax loolu nun ni koo xam ne ma nga war ak gëléem togg ca nit de gis nañ laaj nañ leen fu ngeen bàyyi ko ñu ne mim maa fekk dañoo wax yonent bi ne ko fu ngeen bàyyi mu ne ko mim maa def ko yonent nga ji mim maa yin daawixin ñun de xamuñ ko bu gii jóg boo xam ne maa de ñun xamuñ ko fekk yonent moom xam na ko ma nga ji mim maa yin daawixin ji yàlla wax ne ci laa jëlee doomu aadama de mu ñëw nag waaw daal di xoote nag ba mu xootee ne yàlla jox na ma dëgg mi ak ndox mi mu du ngeen xam Babacar Diop xas tëral daafin tëral xeelam Omar Diop xas ñëpp a xas muhaajir waaye ñoom ñëpp muhaajir yi na lañ muhaajir yi na jaaxaluñ ko ñoom la nekkatoon ca coono ba ñoom la nekkatoon ñoom la yàlla wax naa wala si na taboo bi saatil xonra bi min baabi maa kaana tasiixu quluubu fa yaqul minhum mooy na nga xam ne ñoo nekkoon moom ci jamonoy tiis tiis yëpp te jamonoy rey ga te jamonoy dóor yi moo tax nag jaaxal duñ ko ñoom bu nekk jaar nañ ca lamsaar gi itam ba day jégalu nag ñooñu day wut ndax bu ko def nag laa saa bi ñu maa jóg ne ko yow day yéen di fa mel ni nun nga nam ndax say bokk yëpp xas nañ te terewul ngay waxaat li ngay waxaat waaye ñun duñ wax la bani dara waxoon ne Moussa isab anta wala bu ko faqaatila ina haahunaa qaa'iduun ñun day duñ wax loolu dañuy wax ne xanaa xanaa jógal mu jiitu ci suñ kanam àndal ak ñun bébbal kon xam boo kuusee géej gi ñu xuuf ko boo daagoo gaaloo do ñuy daj ko duñ desal genn gone ya senn si mbate du de si ñun moom mat yonent wi nun nga na muy ajal yéen laa na ci ñetti téeméer ak juróom ñi fekk junneew nit ñetti téeméer ñaari dañ ko ñaari jaasi yatti fas xaw xam nañ bu bam ko am déet di fekk boo xam na nga fa doo seen ñu bubbi koom junne boo xam ay risaasa ko texee jinne boo xam ne ña nga xoomal jinne boo xam ne ñun waaye nag li yàlla na wala qad masalakum laahu bi badrin wa antum azilatun وتقال كنت كنت تقولون أن يكم يكم أن يمدكم ربكم وأن تجعل بما كان المسلمين بل إن تجروا وتتقوا ويأتكم صلاة يمدك ربكم بثلاثة آلاف مما كان المسلمين ما جعل ولا إلا بذل لكم ما لم ينزل إلا من عند الله لا شيء لكن لا يد يب مي واتي تسالو بدل أكل أنصار إيسانكم بالمدود الدنيا وهم بلا دود قبل وصوروا أفر أفر منكم وتواتم دخلتم في النار ولكن يخرج أمر كان مغفرا ليك من هلك عن بين دوايا من أمين الله سمين عليم yooyu yëpp mi ngi wàcc ci xale bala moo tax ah téere alaaji Ibrahima bii alxuraan a fay jàng ba mu ko defee nag ñu daal di ñëw nag yonent daal di samp xale waaye ma nga nekk ca gannaaw ma nekk ci mi ngi nekk ci booru safwaan mi ngi ne ci diggante bi ba ko defee waaw ñu ne jaabir ñu ne Musayfata yamaan yi kenn la ci ñoo ne ko yónnent bi mbir mi moom dañ lay ba ngay def rek am am ndax mbiram pexe la daan lay waxal dañ lay diisu mu ne ko mbiram pexe la tey mbiram diisu mu ne ko boo nag ndox mi kenn mu ko fi mu ne te xoree si suñ dikkee dox suñ diggantee ndox mi loolu bon bomb bu mag la masalan léegi daal nañ boot teen bi suñ bootee teen bi noo fay moom suñ ci sola sax ñoom duñ ci mën a fi te ndox kat da ngay nekkul ñàkk ndox doo mën a dem mu ne ko mooy leen jóg leen waaw loolu moom bëgg de suñ nit ñi ku wax loo xam ne pexe la rek na na te ni ñaaw ngeen yonent yàlla Muhammad ba ba nga xamee ne kenn ci ay saabaab rek andil na ko njub andil na ko rayu mooy li arab di wax rayu mooy pexe mu jub dégg ko mu daal di nangu ne jóg leen usaabata dégg nga jam na jam na mbidde ñu daal di dem ca gannaaw ba biiru safaan daal di sampale foofale bañ sampee yonent daal di faafaab la Jubayr ibnu de def ko ca suufi xale ba ne ko nekkal foofu yow xaat ñu bu kenn dikkee suñ gannaaw waaw bu ñuy bu ñuy buñ nootee buñ ñëw buñ buñ nootee buñ ñëw lu mën a xew duñ ñëw ñu daal di sampala nag tele li ko fekk li ko jëkk fekk na ba nga xamee ne yonent bi nag abi sufyaan daal di dox ca kaw suusa ci suuf si xel gi daal di dawlaw mu yónni aboo dam xam aboo dam dam mu mën a mu mu mu gën a mën ndaw ñëw ay noppam caw boppam ba yaram wépp gaasaan ma ngay yuuxu na penc moom xàgg ñu gasan ko ne ko lu xew mu ne lu may wax du ma ko waxee lu may fakkaara la ma ngay gas gas yi nopp kay dëgg neen moo noppam koy xam ngeen kooku mu mën a garaawal nit ba maa kenn xole ci njub daal di ak mu ne leen lu ngeen gaaw gaaw Muhammad doy Abi Sufyaan nangu njëgg ma gis ngeen man mii moo leen ñoo ma jàppoon ñoo des sama nopp yi nii ñoo ma taw Abi Abi Sufyaan Abi Jahl daal di fexe xoote nag ñun ñëpp ñëw ku mën a xayma gannaaw dañoo daal di ñëw keroog la umma umma kaaw keroog la mu dégg ko umma yata ibnu xalaf waaw fekk pasa bi noo baala te jikkoon na fa bàyyi ko Medina te mooy sanga Medina fekk xaritam la woon muy sëcc muy wër ca Kaaba ga nag maanda moom muy wër Kaaba ga abi jaan ñëw fa ne kii kan la xanaa kii lu saabi mu a ah, kay mu ne ko xaa ah, a bon yéen a ngi dikk làq suñu noon bi waaw foofu ngeen dem làq ko su ma neexoon doo wut wut tey kaaba gi mu ne ko ah, mu ne ko mu ne ko man maa moom ya maa foofu waxtu woon di dox di dem saar di jógee ko wajaajéer yi may su ma neexoon ku jóg ku jóg ku jóg vraiment da nga kii mooy buur ñu ngay wax ci kaw mu ne ko maa maa wax sa kaw yow sax yow umaysa ibnu xalaf yonente na la moo leera yow xam nga ne moo leera yow mu ne ko fu mu wax ci biir nit ñi dana ci biir naka mu ne ko ci biir naka mu wax xaw ma fu mu lay rey waaye mu wax na la na dana la rey mu ne bon dee dootu mu génn dëkk bi ni Muhammad day du fen mu kulik moo tax yàlla yàlla mooy maye gëm yàlla ku xam ne ni du fen salam la wax gëmu la ko ngeen xam ne gëm yàlla yàlla koy maye leneen it moo koy maye kum ku may doo ko mën a am di loolu amee nag mu da di gaaw mu daal di mujj nag baax ba ba ñu ñëwee nag bi loolu xale nag yonent abi daal daal di xoote Umayya tey ñoo xam ne ko yow ka seetoon nga sama bis daal sama mbokkam lan tànn xam ngeen man kat loolu maa génn man man loolu maa génn mu ne ko doo génn kat mu ne ko doo génn mu dem na indi xandu cuuraay dégg ko ak tasngal ak jiw bu ñuy diw di diwal jigéen indi tëddalal ko di ko wan ne ko yow jigéen nga mu ne ko ah wax nga wax ju bonde waaye daal xam nga ne Muhammad loolu wax dana am gonamano kumorolma gen dëkk bi waaye daal maa ngi sama jëleen gu gaaw a gaaw su ma gisee lu ma xamul ne ëpp daal di man daw daal di man daal daal di daw man daal di raw waaye daal du raw kenn dañ ko rey de mu umayata ibnu xarab loolu tax safaan ibnu umayata bañoon ko nag bi loolu xame nag ñu daal di sampale nag bañ sampalee xatbatu saybatu walid ibnu saybata ñoo jëkk a génn ci xolej bañ ñëwee fekk na li jëkk benn xale lañ koy yónni ca teen ba la waa ja waxoon muy root gaa ñi jàpp ko fekk yonent ngi julli gaa yi ne waa xale bi naka xale bi xem ñaata lañ bëri na ñoom ñu dóor mu ne bëriwul ñu dóor dóor mu ne bëriwul ñu bëri mu ne ah dëgg dëgg bëri nañ ba yonent ñu àggalee ne leen yéen bu xale ko bu ngeen dóor ko te ngeen bay ko mu ne ko waaw lu bëri ñëw na mu ne ko ñëw mu na boobu ñëw mu ne ñëw na Abidjan ñëw na mu ne ñëw na Wali ñëw na fukki mbaaxara bu fukki kilifa ñaar mu ne ko ramatkum makkatu bi ablaahi kabidiha makka sànni nga leen de waa makka dëgg nga jël bi ñuy xañee nag bu ñu ko ba junne lañ waaw mooy leen leen junne ñu dalil waa xeexal ñetti téeméer ak juróom yi xeex ak jinne waaw te xamuñ dara ñaam moom xoomal nañ ba xam ne jeexaluñ dara ngeen xam ne yàlla moom yàlla mooy lépp lépp ba mu ko defee nag ñu daal di sampale xare xotbatu daal di ñëw ak saybatu ak wali innu saybate ni hal min muharibin hal min muqatilin hal min mubarikin ana kuy xéewleewoog ñun ana kuy xeexal ñun naka mu def ñetti gaañ yu bàyyi ko lantaar daal di lagubu ci leen ñu ne ko déedéet ñun sunnaalee la ñuy laaj ña bàyyi ko woon Makka ñëw fii la ñuy soxla woon leen yéen yonent ne ana Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib mu ne maa ngi mu ne ana Ubaydata ibn Haaris ibn Abdul Muttalib ne maa ngi mu ne ana Hamsatu ibn di ñëw rek Sidina Ali daal Shaybata daal di ko til xabbatuwa bon welata la bibi wona mona booba nag mu mu jëkk ko mu gañe ko daal waaw gayal ko mu daanu booba lay way na naa ko abi taalib day wayal na ay way ne waaye daa way yam way woon man maa ko maa ko ca gën a xee nana hoon lan yajiru ilayka بجمعهم حتى أوشد بدفع بدفين ترابا هذا نفهمه حتى نفر حوله فنخير هنم نعين والهلي abi taalib na na xoon duñ xakki ci yow mukk duñ la jot ci mukk feeg géewuma feeg gi nga doomu matum du loolu mën a am wallahi du du ma leen jébbale fee nga xam ne tey waaw waaw fee nga xam ne tey maa ngi du ma leen jébbale mu ne ko maa ko gën a man de def naa ko ni xëy na ko nag andi ko ci yonent bi ba fa la jëkkale ko nag gaaya songa nag waaw yàlla nga koy jàngal yàlla ngay jàngal yàlla ngay jàngal yéeg malaaka ya xare maga naa leen fa lori boobu foo xala naa xee wa lori boobu minum kulla banaanin dóor leen ca doqee doomu aadama fu doq ga dee dogee mu dee dóor leen ca baaraam yi fu baaraam ya dogee ñu dóotuñ mën a ngëb jaafi de yéen da nga tàllal loxo naa yaa xay yaa xayum dina ma digal taxi yaa xay yaa xayum dina ma digal taxi yow sama borom loo ma dëhaloon ci dëhal loo ma doodoon ci ndimbal yal nag ma koo ngir tey